téléspectateurs yi ñuy seetaan fii à travers Yoff Mbollo TV ñoo ngi leen di nuyu ah, di leen ziaraat bu baax baax baax si seen onde ak télévision locale li ñuy wax ne ah, événement yëpp ñun bàyyi ñu dara ci Yoff fu ñu waay woo rek incha allah dinañ la wuy si comme ni ngeen ko gisee nii rek ah, ñu ngi fi nga xamante ne nii mooy Yoff ndenaat ñu nekk ci lan bu ngeen gisee mbër yi nga xamante ne ñoo nekk suñu ginnaaw ñu nekk préparation combat ki nga xam ne mooy caatu Yoff le 21 juillet incha allah fële ci <clears throat> stade Iba Mar Euh, tey muy def open press am kon euh, yoon la pour ñun ñu ñëw teew fi xool naka lay préparer combat xool ay entraînement ak euh, ay dëkkuwaayam ak ay am di jàmmam xam naa fekk ci kanam tuuti incha allah dinañ leen si gën a yaatal. grand nuyu naa la. waaw ñu ngi lay fay. bi naka la. man Pape Ngom lañ may wax. Pape Ngom nga nekk manager ki nga xamante ne nii mooy caatu yoof tey ngeen tey mu nekk seen open press ngeen nekk si préparation combat le 21. tey naka nga ko dund. mais gannaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant sëñ Touba di nuyu ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ñëpp waa open press bi du ñu def lu sant yàlla bu baax rek parce que gis nga ni mu demee sunu borom dafa dogal caat dafa war a bëri le 21 juillet loolu lañ nekk nii si préparation yi open press bi nag pause bi du lan lu dul yëgal waa Yoff que ne seen doom xewle na. loolu rek moo waral open press bi te tamit li si objectif bi dëgg dëgg dëgg mooy loolu Yoff ñun maanaam dañ bëgg champion comme niñ ko amee si Maliña dañu bëgg Maliña am ay rakk yoo xamante ne tey ñoom ñoo koy défendre ñun loolu la ñuy souhaiter quoi. le 21 tam nekk dimanche bi mu ñëw ba pare est-ce que pare ngeen physiquement psychologiquement ak moral. non sant yàlla bu baax di wax macha allah mbër man instant bi mu amee lu may wax population bu Yoff laa koy adressé mais mbër muy caat.

amul benn mbër boo xam ne mu ngi takk ngemb ñun ñu gëm ne caat koo ko mën bu fekkente ne yoof jàppale nañ ko caat amul benn mbër boo xamante ne war na ko mën a téye si làmb mais nag yoof la ñuy xaar seen jàppale ndax sur tous les plans xaalis mystiquement euh, ni ñu ko moralement tout yoof am na lépp quoi mais nañ ko def pour waa yoof loolu mooy illa ji mais bu fekkee yoof am na lépp te sentiruñu doomu yoof sentiruñu seen bopp si lool du neex bu ñu waxante dëgg mais caat bare na si tous les plans waa Yoff la ñuy wax nañu génn a mobiliser wu supporter seen doom ngir mu mën a exercer egg niveau bi nga xamante ne ñun moom lañ bëgg pour mu yàgg fa waaw loolu daal moom la ñuy wax waa dëkk bi di ko wax ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi fi te gëm caat waaw. merci beaucoup waaw mais jërëjëf yéen tamit leen di gërëm waa Yoff mbooloo. parce que équipe Yoff équipe mbooloo Yoff mais xam nga ngërëm gi nag li ñuy wax wolof dafa war ne nit bu defee li ko war maanaam dañ koy dañ koy sant ndax ki mu waroon te defu ko loolu moo tax xam nga mënoon ngeen am na ñu nekk yoof te ndax ñu ngi wax si vidéo bi ne nañu jàppale waa yoof tey yéen li ngeen def am na ñoo xamante ne ñu ngi leen di oo ñu def ko kon kon dañ leen amal njukkal si ñëw gi ngeen ñëw ngir jàppale ki nga xamante ne mooy caat parce que yéen a ngi wane ab liggéeyam dañ leen si sant bu baax di leen gërëm di gërëm seen directeur général muy siyaar si disponibilité am sincèrement parler gis nañ ni muy taxawoo caat yàlla na gën a jëm kanam na lu lañ leen di wax di wax tamit yoof nañu génn jàppale seen doom champion la war na mën a nekk lépp si làmb jërëjëf merci beaucoup ah waaw su ma kanam aussi adversaire yaa ngi suñu kanam xam nga ñun suñu morom yi kenn mënu leen jeexal moo tax falee ka mag ñi may ñu saas ñun ñu diima dalantee ñoom liggéey dem suñu yoon quoi pour l'instant loolooy làmba ji quoi merci beaucoup waaw kontaan naa ziar maa ngi sant yàlla julli si yonte bi sant samay sant waa yoof yëpp kenn maa ngi sant waa yoof ngor maa ngi leen di sant lébu yëpp ñëpp maa ngi sant di ko jiital si loxo sal sunu saldige yi jaraaf yu sundooy la nga koy teg si loxo mu joxoon ñu ko ñëpp parce que mooy président saldige yi waa Thiaroye sax a bëri yokk rek. su ma daan def benn damay def 10 incha allah parce que mbooloo mooy doole. Mhm. parce que mbëru yoo fi yëpp jàppale nan ma bu dëgg yàlla boo gisee maa fi gën a ndaw mais li ma am ni xam man moom man da daf ma jaaxal ba tey quoi bu dëgg yàlla. yaru rek. ma jaaxal xam nga tax mu jaaxal ma. parce que grand frère a wàcc. benn maal Niang moo jo xam nga oh, gin jàmmalaay ñëpp loobu yow suñu côté yi bàyyi ngañ Abibou Babacar ak Ado ñu ngi ñu ngi siyaar ñëpp parce que ay ay kilifa lañ mënoon dem def leneen xam nga mais ñu ngi ñëw jàppale ma pour bëgg ma am dam rek mais yàlla na yàlla def jàmm rek incha allah waaw. incha allah non xam naa ko bu baax champion la daanaan la bu dëgg yàlla. non dafa mën a bëre mën naa bëre trop. maa ko dàq bëre loolu matul matul wax sax billaay walaay. te bu dimanche. billaay walaay taala li nga xam ne maa ko dàq bëre. waaw Barke Serigne Touba. yaa dàq ab tam ay mbokkam xam na ne maa ko dàq bëre ñi daan daanu leen de. man xoolal li may suñu yata mi daan mi daan Pape bii paase nii. Sibel dama ko daan Zambala top 5 laa koy yóbbu. Boy Seye 2 moo gën a as si booy gàkku de limal booy bu ko dàq bëre si làmba ji xanaa da fay ba soo ko dàq bëre daan naa mbër yi daan naa leen yëpp daan naa leen non mën naa bëri trop sax mais man dama xam sama qualité xam li ma liggéey ak samay coach li ma yan xam naa ne bu ma demee stade incha allah day yomb man waa Yoff la Lébu Pire 100 pour cent Papa Diam c'est moom day nax ñu bëri xam na dafa nax ñu bëri dafa volume dafa volume quoi kaw gi dafa volume mais buñu jàppante yéen yéen waa làmb yi di xam ne Papa Thiam amul doole bilaay leer yéen dina nga xam parce dama kay wane damay wane ni amul doole dafa am faiblesse dama koy wane dama koy jàpp dox si kawam am ka incha allah bilaay walaay taalaay waaw waaw man xaayalaa moom xaayalaa moom

Pape Thiam bu tegoon poids maax moom maa ngay gën a diis billaay wallaay bu ñu tegoon gën a diis. waaw tey ñu gis pour cent yëpp bi ñu yëpp sant yàlla parce que boo gisee lii suñu maire Yoff yi moo waral lii yëpp. Abdou Naar parce que Abdou Naar Abdoulaye may ñàng lii yëpp ñoo ko fi def ñun suñu dërëm demu si ñu leen sant ñoo xam. maire bi saa yu mu koy joxe rek ñu ko quoi yal la fi yàlla teg ñoom ñëpp ñuy doxal Yoff nice. waaw tey nga li nga mu liggéey rek parce que man maa ngi liggéey ànd ak samay mbokk combat lu ma jaral rek incha allah dinaa ko def pour indi ndam Yoff. waaw tey sant yàlla pare naa si lépp instant yi dimanche laay xaar rek incha ma ñëw wane sama bopp. dégg nga waaw yow instant yi ñu génn ñëw supporter si ma ma wal leen sama bopp ñu xam ne Yoff am na nay mbër bu dul man sax mais am na mbër champion yi fi ne nan génn jàppale ñu mbër Yoff yëpp ñu jàppale ñu tey sey lamba ji dañ si am wàll Yoff da si am wàll parce que ay booy ndaw fi ne booy mën a bëre macha allah tey sey bu ñu kilifa yi jàppale bilaay wallaay lamb fii la ngay déggee Yoff mais du nga ko déggee ay pigi naax géejawaay leer lool per ngu na dañ dañu doon bëri mooy doole. mbooloo mooy doole saa yi gars yi dañu booloo buñ buñ booloo danañ am dara incha allah léegi man maa ngi teg si ñoom dinaa teg sama bakkan di ñaan yàlla nag mu suturaal ma quoi parce que sama morom ñu bëri nañ daan. yàlla na yàlla suturaal mu tëjee ko victoire parce que ñu fay de fay de fay de suñu ren jii yàlla dimbali nañu. waaw tey jii ñu gis autorité yi est-ce que ñoom ñu ciy jàpp comme nekk biir waaw maire bi moom jàpp si bu baax ticket yi jënd na ticket yi jëlal nañu dix car dix car la ñu jëlal may ñu ay ticket boole si ñu ngi sant ñëpp ñu ngi woon ak ñeneen ñi quoi su mel ne ay Tayiru Taalamenga xam nga Ndoy Saw xam nga jaraaf yëpp Ablaye Ndour ñu ngi koy woo si combat bi waaw ñu ngi sant ñu ngi sant Pape Seck nag Pape Seck bu baax ñu ngi koy sant bu baax di nuyu Cokko ci ko ci ko ñu ngi koy nuyu ci ko bu ñu naat parce que moom si combat bi bu baax baax baax. boo ko am Ndoye noonu sama woon la woon sama sa xarit la woon wala maa ngi jaay la waa Yoff yëpp saa yu ma daan bëre day sonn. moom ma daaxoon bëre foofu mais saa yu may bëre dina ma wax defal naa temps wax temps moo tax tey ji xam nga bi mu génnee mu wàññeeku na man trop parce que saa ñu daan dem làmb dañ koy gis suñu kanam. mu ñuy fital dañuy dooleel. wàññeeku na suñu trop mais ñu ngi koy jaale ay xaritam Baye Ousmane ah Mame Baboucar ñu leen koy jaale bu baax. su su ma la samay mbokk yam naan ba pare li des maa ko maa ko war a mottali maa war a ñëw wane fulla ak fayda ama li nekk si man ma génne ka wan Pape Thiam du ma moromam waa làmba xam na ni yoof dafa am champion. loolu laa bëgg ñu xam ko bu dépendre si man bu dépendre si man day gaaw bilaay moo ngi yooyu dañuy mobiliser te waay fa laa jógee nii gàkku doy fa laa daanee waaw waaw la mujjee daan gàkku doyoo ko man Papis sama morom la. sama morom sax di sama morom la dafa am doole dafa mën a bëre ma am doole mën a bëre boole si. kon bu jour ba bu damay wane sama xarañte xam nga mooy lan ñëw jàpp ga daan ka gars yi wan ni gars yi ne Pape Thiam mënul bëre. dafa leer loolu dimanche sa dimanche sa. Bambay diir maa ngi maa ngi koy gël xam nga ma koy gël Pape Thiam bu ma féetewul suuf mënuma daan suuf sama mën a féete daan ma loolu maa ngi maa ngi siy liggéey bu baax maa ngi demal sama xel si nu ma ko war a jàppee ba daan ka loolu yëpp ñu ngi siy liggéey ñu nga xam ne grand ñu nga xam Malick ñaa gin xama mbër yu mbër yu yoof yëpp moo limee damay juum laa dum xama allo jàmmalaay ñu ngi ñëpp ñu ngi siy liggéey waa baytir waaw damay sant yàlla bu baax di gërëm Papa na nag Papa na di ngi koy gërëm bu baax a baax baax di gërëm imnu asan taw xam nga di gërëm sama sama fan club lay wax sax di ko di jël nuyoo di ko jaaral ci ci mort mort Diouf moy président fan club bi mang kay mang kay mang koy maa ci mom quoi bi si moom Mar ñu ngi lay woo ci combat bi gisugul la xam nga Moustapha Mar ñu ngi lay woo ci combat bi gisugul la Abdoulaye diouf sar japp nga ci bëgg nga gën ñoo jappalé gën gën ñoo jappalé wa di sant yalla di gërëm waa dox jàmm soppi jamono xam nga sa bopp waa daaru salaam ñu ngi leen gërëm bu baax mbaaru mbaaru mbaaw waa bango ñu ngi leen di woo si combat bi gisagul leen waa rapadio ñu ngi leen di woo si combat bi waa secteur as yóbbu gi yëpp ñu ngi woo si combat bi ñu ngi leen di woo si combat bi ñëw ma xama ma ñëw wane sama bopp di gërëm ñëpp àll xama gaa yëpp di gërëm samay mag nag di gërëm samay mag yoo bokkal ndayax baay a yi ma bokkal ndey di gërëm Soro Fall samay mag Aji Fall Binta ñoom ñëpp Kéba Kande ama jàpp si combat moom dafa waroon ñëw sax mais tey ñëwul quoi ñi gërëm waa Juróowaal tam di leen di woo si combat bi ñu jël ñu jël nuyoo bi tekk si loxo may ndoy xam ñu ko waa Juróowaal la waaw ma ko ñu ngi woo si combat bi nga ñëw Ablaye Thiaw ñu ngi gërëm moolu mbaali capitaine moolu mbaali moolu gën teer yeex nurkat yëpp ñu ngi lay ñaanal la ba Abdoulaye Thiaw nag bu yàgg fi amiin yàlla yokk ay leeram ama mu ñuy mën a ñaanal bu baax ñuy ñu dem li yoof Cheikh Mansour Diouf day jàng le 19 le 20 ñu ngi koy ñaan bu baax xama mu yokk ñaani papa Ngalla ñu ngi gërëm ñëpp di ñaan yàlla Sénégal nag jël coupe bi quoi parce que nama nan coupe ba dëgg yàlla